muñ lay àndal foog nga muñ mun nga muñ ndax ku muñ muñ. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def sama jàng. yaa ngi ci jàmm sant alhamdulilah. sant ba. Seck. Seck. yaa ngi ci jàmm Seck Seck. yow sant ba. Guèye. Guèye Guèye ah yow sama nijaay nga. ah waaw ndeysaan. alhamdulilah. sa bi. alhamdulilah. waaw man tontu de daa am ku ma doon seet. koy la am jigéen. góor la. góor sama nijaay la. sa nijaay bi nu mu tudd. Cheikh Thiam. Cheikh Thiam. Mm-hmm. Thiam. dëgg la dëgg la man yoruma téléphone sax maa ngi ko bëgg a woo. Ah, maanaam daal bu ma déggee sa daal danga doon seet sa ndijaay waaye gisoo ko. gisuma ko waaw. léegi da nga koo bëgg a woo. dama kaa bëgg a woo te amoo téléphone. amoo ba këru nga numéro bi. këru naa ko waaw. ah waaw. Hmm. dee neexu. la un un. waaw. <laughs> ok merci. jot nga sant yaay. waaw jot naa merci waay jërëjëf. jot naa ayca ñu yendu jàmm. merci waay. waaw jërëjëf ndeysaan. macha allah. xale yi dañoo baax. maaleykum salaam. yooyu sëñ bi. sooy sooy rek. ça va sëñ bi. ça va. yow laa baalu kay. waaw. loolu. Saya bi man wax ji ko damaa mu ne ma bi nem dab bu mu noon ah fàtte la neex fu mi toll nii yee ji jóga jóga sa mag la ñaari ba oh, eh, eh eh dafa ni waa li def ni eh eh, eh, eh. indi bu njëkkoon góor papa daa ñu tëddee bu ñu sonn fay ñu xaalis xaalis bi fay bi matul. lay laaj wala dangay leer lu ko appel bi mu reer na leer duñu waxantu moo nekk nii. waaw hmm. mu eh, xew lu xew <laughs> góor gi lu gi de lu fi xew moom jarul nga koy laaj bi laaj bu bëri. Eh, eh, taxaw leen de taxaw leen de taxaw leen maa jommi man te gisuma bañ a gis ne man. góor gi lu xew fii. <laughs> ñu laaj ñu wax la wala. wax ma dëgg. li la. muy paa bi ma romb ko mu woo ma ni ma ba xam bëgg nga ay sëba ku ne xam ne événement bi ñëw na ma ne ko waaw mu ne ma luñ dugg ñu dugg mu defal ko lu neex mu war jox sama xaalis joxuma ko eh eh wan ko appel bi man dama waxantu mais yow li sa ku boobu gi ah, ni ku jombi nii génn cent mille la ñu war a fay. Eh, jox ñu vingt cinq mille. li ma la du dëgg du dëgg yaama ba mu nooy. waxul dëgg waxul dëgg. yow li nga mel noonu oh, dara xam nga pare kii ma la. mag dina def yenn eh, kii mag la dul ma oh. sutur dafa baax léegi xam ni ñu def hmm? seen moromu bàyyi la moromu bàyyi léegi xam ni ñu def déglu ko ku lay dara am noonu. yéen ay xale yu ndaw ngeen juddoo góor leen ñàkku leen dara bu ma xam naa leen bu baax a baax surtout yow xam naa la bu baax marché HLM. kamal foo na daw sa yaram fii xëcc mboq léegi. lii dugg na moom du euh, génnaat bàyyi leen dili ngeen teg. yow sëñ bi comment fi teg non ma déglu ma démoncer lii ak grand bu ñett dégg. sont faits même xaalis bi maa ngi wax ko man. Ah, xaaral ma ñëw. Eh, sëñ bi eh, xaaral ma ñëw. Eh, non taxaw yow taxaw. ñii waroon na bàyyi ñu dem xawal ñii waroon na bàyyi ñu dem. taxaw kay di góor. ak ah, tëj ñii su ma sama sama àq bu leen dalee. Ah, góor gi yow mag nga mag day bàyyi xel ñii xale yu ndaw lañ sama sëb lañu xale yi xam nañ ne ay dil bu ñëwee wax la loolu kay. mais nan la aw ma crédit. xam nga ni cas bi demee xam ma cas bi nu mu demee mm-hmm. moom dafa dugg mm-hmm. ma toog fii mu mm-hmm. ne ma ne ko maaleykum salaam mu ne damay seet sama ndijaay sama ndijaay gisuma ko ma ne ko ah xam naa da ngaa gëlëm léegi ma moo waxee loolu mu ne ma damaa bëgg nga nga nga nga alma sa sa téléphone ma woo sama ndijaay ma ne ko man de aw ma téléphone whatsapp yooyu ngeen def mu ñu mu ñu aw ma yooyu téléphone bi tii tii tii laay mbott mu ne ma alma ma woo ko mu mu teg gëlëm xalé bi ñëw ne ma danga ma violé ni ni ngay wax ni comprendre na ko ndax xam naa lu bax nak ma yàqal mak bu ëlëgé bu ma dalati dégg nga mu baax masa nag métti na trop trop masa yi nga xamni ne vingt-cinq nga xamni jallu mo moom ma ko joxoon xale yóbbu ne ko jallu ma ko dégg mu ne quarante naa ko daal max la leen jërëjëf ma daal dër max la ñaari baat. ñu doon doo a eh. même mbaa bi moom ne nem yaa ma koy teg loolu nay mat. waaye lii déglu ma effectivement nii doog lañ mënoon doo ndax lii caméra si biir fu ne la am loo def ñu jàpp la nii doog lañ mënoon def. nay jub kaay